Euh, damay ñëw di jëfe benn exemple de présentation ni ñuy introduire ci ménage euh, ndax dafa doon njàngat boo xamante ni euh, bu ñuy seetlu la dina mën a bokk ci lii tax sunu réussitu enquête yi ñuy def maanaam diisoo yi ñu war a def ak ménage yi nu muy mel ndax ca ca loolu la dépendre naka la ñuy duggee ci kër yi ndax bu fekkee ne duggin ba jaa jaaduwul mooy sunu enquête ba du sotti su fekkee ne duggin ba rafet na nag dana nu gën a yombalal lu bari euh, ba tax na dama ci am lu ma ci indi rek ci présentation wala ni ñuy duggee ci biir ménage ñëw naa ci ménage bi taxaw naa su ma ñëwee li ma war a njëkk a def mooy nuyoo ci nuyoo yi gën a teggi ne maanaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ñu fàtte ne nag binoom laa àndal binoom bi ma àndal moom it dana présenté wu waaye lii ci ëpp solo mooy ñun ñaar di ay binôme war nañu mën a déggoo ci ay kàddu ba bu ñuy dugg man Hamidou man maa war a wax wala Abdoulaye mi ma àndal mi moo war a wax wala faatu mi ma àndal moo war a wax bu ko defee eh, dinañ déggoo ci kàddu ba kenn kiy dugg kooku moo war a présenter wax li mu war a wax bu ko waxee ba pare daal di présenter ki mu àndal su ko defee man bu ma ñëwee man ak Abdoulaye ñoo ànd su ma ñëwee danaa nuyu borom kër gi salaamaaleykum wa rahmatullah mu dalal ñu bu ko defee ma ne ko ah góor gi dey tey man ak Abdoulaye mii ñoo fi ànd euh, suñuy tànk tey lu ko waral maanaam euh, l'ARTES di benn euh, kuréel bu jëm ci wàllu lépp luy di seetlu mbaa di xool ay coppite yu am ci wàllu koom-koom ak wàllu social ñooñu fi yebal ñu ñëw fi ci benn programme bu tudd jàngandoo euh, jàngandoo nag dafa ñëw ngir xool ngir leerlu lu bari loo xamante nii mu ngi am ci mbiru njàngu gone yi maanaam bu ñu ko demee ba ca biir sax ci biir waxtaan dinañu waxtaan ci lu bari ci loo xamante nii dana jëm ci njàngu gone yi dana jëm ci dundinu gone gi dina jëm ci dundinu waa kër gi euh, loolu daal moo doonoon suñuy tànk di la ñaan permission ndax loolu danañ ko mën a def ak yow waaw mbaa salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di tàmbali waxtaan bi ci mbégte bi ma am toog fi tey ngir présenter leen euh, programme mu jàngandoo bi nekk ci jumtukaay yu xarala yi ñuy woowe tablette euh, jàngandoo nag benn programme la buy saytu lépp lu jëm ci njàngub gone yi ci biir gox yi ci biir Sénégal pour bañ a yàgg loolu dañuy dugg ci directement dañuy dem ci laaj tontu yi nga xamante moo nekk ci biir tablette bi animateur bi nga xamante ni nag yaa ngi jàkkaarlook ñun di ñu seetaan ba di ñu déglu pour bu fekkee ne dem nañ ba yàlla dogal ñu nekk ci terrain bi bu ñu jànkoonteeg situation yooyu naka la ñuy tontoo euh, bu fekkee ne ubbi nañ tablette bi rek ba dem ci biir dañuy gis ne dafa am benn pàcc bu ñuy woowee questionnaire ménage naa mooy questionnaire bi ngay njëkk a dugg ngir mën a renseigner tablette bi loolu mooy lan mooy dafa am ay laaj ak tontu yoo xamante nii day dem ci li ñuy woowee njël njël boo ko déggee mooy lépp loo xamante ni kër la nit ña fay dund bokk seenu njël di ci dund mala ñu bokk kër ga di fa yeewoo di fa fanaanu euh, la loolu nag euh, buñ ci demee day njëkk a laajte M15. village quartier amul maanaam question lay doon dañ lay laaj ndax ban village la wala ban quartier la wala ban gox la ci loolu ñu war koo mën a faram-fàcce rek ne loolu li ñuy soxla di ci xaar ñun animateur bi mooy bu ñu fa duggee laaj bi mooy ban village ban gox yow animateur bi fa nga ne moom boo ko laajee borom ménage bi dina la woon la man mii kat maa ngi Mermoz bu loolu jeexee nga jàll ci deuxième question bi. deuxième question bi moom it day leeral rek li nga xamante moo tudd DR bi DR mooy district de recensement district de recensement mooy gox bi nga xamante ni bépp njël bi nga war a seet rek mu nga fa dafa am benn numéro bi ñu ko jagleel numéro boobu boo ko ñëwee di am ñaar ba ñetti numéro yu ci ne nga enregistré ci benn boo ñëwee avancé dem ci beneen question bi bu ñu ñëwee nag ci ñetteelu laaj bi nga xamante moo jiitu lépp rek ci wàllu ñu mën a xayma biir kër gi la fa ne dañuy tàmbaleeg borom kër gi ngir mën a waxtaan ak moom ci leeral ci ban kàllaama la ñu war a waxtaan ak moom ginnaaw bi ñu toogee ba mu xamal ñu ban gox la ba ñu dalal ñu ci kër gi moom borom kër gi war nañu mën a won ah man kat maa ngi waxtaan ak yéen mais bëgg naa ñu waxtaan bi ñu teg ko ci kàllaama gi kàllaama yi nag bu ñu ubbee tablette bi dañuy gis ne daf ñuy proposer daf ñuy won ay kàllaama yu bari yi ci biir réew mi arab français am na ci manjak malinke mbambara maanaam kàllaama gu ne am na ci daal même bu fekkee ne aussi yàlla dogal na kàllaama gi la koo ko wax newu ci boo xoolee ci suufu tablette bi di nga gis feneen fu ñu ko bind autre à préciser maanaam li nga war a mën a dolli ci tablette bi pour mën ko cee enregistré maanaam bu ñu xoolee fii dañuy jël wolof ne mooy doon sunu kàllaama gi ñuy waxtaani bi ñuy defee diisoo bi ñun ak moom suñu paree ci loolu ñu dem ci ñeenteelu laaj bi ñeenteelu laaj bi day dem ci moom ki nga xamante mooy borom kër gi maanaam borom njël bi kilifa gi ci kër gi nañu jël benn numéro de contact maanaam numéro de téléphone du répondant numéro de téléphone lépp loo xamante war nañ ko mën a teg ci suñuy loxo ba bu ëllëgee ñu mën cee mën a jokkook moom daal di ciy waxtaan su ñu xoolee loolu mooy premier pàcc bu njëkk bi ñuy njëkk ubbi ci tablette bi ngir am données yi nga xamante ne moo nekk ci ménage bi su loolu weesoo ñu jàll ci ñaareelu poñ bi ñaareelu poñ bi bu ñu seetloo bu baax ci tablette bi ci jumtukaay yu xarala yi maanaam ñu di ko woowee sax àlluwa ci wolof mais àlluwa yi àlluwa yu xarala la dañuy xool ne fii dañuy bëgg xool lépp loo xamante ni ay jum jumukaayu borom kër gi la maanaam melokaanu borom kër gi ci yu baree bari daal lu ñu bëgg a xam ci moom bi ci jiitu moom dañuy laaj turam ak santam turam ak santam lañuy ñuy njëkk a laaj maanaam boo xoolee première question prénom du chef de ménage mooy turu borom kër gi moom Roqaya maanaam ñu jël exemple bind Roqaya beneen boo xoolee ci même ligne tablette bi ñu def nom du chef de ménage santu borom kër gi ñu jël Cissé bind Cissé soo bindee Cissé ba pare daal di jàll ci beneen question bi beneen question bi nag day dem ci li ñuy woowee maanaam moom ci ban sexe du chef de ménage maanaam góor la walla jigéen la su ko defee bu ñu xoolee am na li ñuy woowee ci français sélectionné ci ñaari tomb la benn bi bi ñu féetee càmmoñ mooy bu góor gi bi féetee ndeyjoor mooy féminin mooy bu jigéen ñi nga xool ban la ci méngool ci borom kër gi nga dem ci booba su weesoo boobu ñu jàll ci ñetteel bi moom it dafay laaj boroom kër gi nga xamante moom ngay waxtaanal ñaata ay at la am maanaam at yi mu am ñaatal mu leeralal la te at yooyu dafay tollu ci fukki at ak juróom-ñett ba jàpp téeméeri at ak fanweer ci bu ma juumulee ci li nga xamante moo nekk ci document wu larte si ñu jox jàngandoo su loolu weesoo moom dina la jox at yi nga xamante moo nekk ci këyitam ñu jàll ci beneen laaj bi beneen laaj bi day doon boroom kër gi nga toog di waxtaan ak moom maanaam njàngam fan la yem maanaam dafa njàng booy xool am na ay pàcc yu bari am na ñoo xamante nii dañuy dugg juróom benni at ñu bàyyi ñeneen ñi continuer ba yàlla dimbali leen ñu dem ci beneen niveau bi foofu nag boo duggee ci tablette bi da jox ay rubrique ci liñ naan France da jox ay pàcc yu bari maanaam mm, ki may toog di waxtaanal di borom kër gi di kilifa yi kër gi masul dem école maanaam masul am benn xam-xam bu jóge ci école wala wa ilaa mosuta dem fenn foo xamante nii dem na fa sàkku ci xam-xam wa ilaa di nga gis ñu proposé la ndax mas na jàng sax njànginu mbedd yi nga xamante nii moom la ñu woowee alphabétisation wa ilaa ñu ne la kii de njàngam sori na comme niñ ko tàmm di wax ci sunum réew bu boobaa nag nga sélectionné maanaam nga tànn ci yooyu ban li ci méngool su boobu weesoo kii par exemple bu ñu jëlee ci kaawu roxee ñu ne ah moom day primaire la yem maanaam ci njàng mu suufe mi njàng mu suufe mi ci suñu réew mooy njàngum primaire ñu daldi di sélectionné suñu paree ci loolu ñu dem ci maanaam borom kër gi nga bi ñu ñëw seet si moom yëngu-yëngoom lan la ci lan lay yëngatu yëngu-yëngu yi muy def moom ci la ñuy ñëw nag bu ñu xoolee quelles son les activités du chef de ménage mooy li feeñ ci tablette bi léegi activités chef de ménage boo ñëwee di ko laaj ci koo xamante ni jàngul ci sunu mbokk yi nekk ci teeru yeeg yooyu nga ne ko lan mooy activités say activité du la gaaw a tontu danay laaj nag ñu gën ko leeral ci wolof même bu wolof li gën ta leer sax mais ñu gën koo xóotal xamal ne ko ah yow kat danga am loo xamate yaa ngi ciy yëngatu ngir di ci suturoo yaa ngi ciy yëngatu ngir di dundal sa njaboot ah bu boobaa moom dana la leeral ne man kat maa ngi ci lii ci loolu aussi bu fekkee cliquer nga ci partie boobu di nga gis ne dalay lay proposer da lay jox ay tont yu bari tontu yam lay jox nag danga nga ciy tànn benn bu méngoog moom lam la tontu su ko defee moom ngay dugal ci foofa nga laajoon léegi. boobu beneen bi ci topp day situation matrimoniale du chef de ménage foofu aussi bu ñu xoolee tablette bi daf ñuy laaj ay information yu jëm ci borom kër gi ñu fa fekk bu dee góor la wala jigéen la maanaam ndax mu ngi ci buumu sëy wala nekkul ci buumu sëy maanaam ci loolu la ñuy laaj sur quelle la situation matrimoniale du chef de ménage bu ko defee moom foofu aussi da lay jox ay tontu maanaam benn jabar la ñaari jabar la am amagul jabar amoon naa jabar waaye dañoo tas amoon naa jabar waaye waa jëkkër waaye nekk dundatul ah man de dama nekk ak sama bopp rek lu ma neex laay dunde yooyu yëpp mu doon ay tont yoo xamante ni tablette bi daf ñu koy jox bu ñu ko joxee nag ñu tànn ci ci li nga xamante ni moom dooy méngoog nag lam ñu tontu waaw bu ñu tontoo nga jël ca la nga cay jël loolu boo xoolee mooy ñaareelu pàcc bi nga xamante nii moom moo nekk ci questionnaire ménage bi questionnaire ménage boobu ñaareelu pàcc bi moom la ñuy wax les caractéristiques du chef de ménage maanaam lépp loo xamante ni taq na borom kër gi laaj yooyu boo xoolee moom la ñu jël dugal ko fii nii su loolu weesoo dañuy dugaat ci tablette bi ci suuf am na continuer maanaam continuer ñu mottali la nga xamante moom la ñuy def ba léegi rek bu ñëwee ñu ngi duggaat léegi ci ñetteelu poñ bi ci biir tablette bi ci biir euh, jumtukaay bu xarala bi dañu continuer ba dugaat léegi ci voilà léegi ñu ngi ci ñetteelu pàcc bi boobu aussi day dem ci lépp luy xar kanamu kër gi nga dugg maanaam boo ñëwee dañ naan les caractéristiques du logement mooy troisième ñetteelu pàcc pàcc bi caractéristique du logement mooy li ma wax léegi rek xar kanamu kër gi nga dugg foofu nag dina am ay laaj yu bari yooyu ñu fay laaj bi ci jiitu mooy statut d'occupation du logement maanaam boroom kër gi nga fa fekk am na loo waxtaanoon ak moom ba mu am ay leeral yu mu la joxoon moom ci boppam léegi nag da nga ñëw ci kër gi pour woo am ay laaj yoo ko laaj statut d'occupation du logement maanaam foofu moom danga koy laaj kër gi nga xamante fii laa la fekk ndax yaay borom ndax da ko koo loué mala walla wala boo ci boobu nag boo duggee ci tablette bi dana la jox ay tontu yu bari maanaam tontu yi nga xamante ni jàpp nañ ne moo war a moo war a mën a nekk maanaam mooy borom wala dafa am ku mu ko bokkal wala dafa luwe wala moom dafa am ku mu bokkal luwe wala dañ ko ko luwe dañ koo jox noonu ci ci teeyu bakkanam dañ ko ko abal daal bu ko defee nga tànn ci yooyu daal di koy dugal suñu jàllee ci ñaareelu question bi. quel est le principal matériau des murs de votre logement maanaam li nga xamante nii ñoom la ñu jël tabaxee ko kër gi miir bi dafa am jumtukaay yi yuñ koy defare jumtukaay yi nag dañuy am yu ñuy proposé yu mel ni ciment yu mel ni banco yu mel ni paille yu mel ni bois ak pisé loolu lépp boo koy xayma mooy lépp lu ñu mën a permettre li ñu mën a dimbali ba ñu mën a tabax lu mel ni ban wala lu mel ni ciment wala lu mel ni ñax wala lu mel ni bant loolu daal di jumtukaay yoo na war nañ ko mën a defaree kër nga xool laajte fii nag euh, dama ciy def benn digression tuuti rek dugg ndax di nga dugg ci kër laaj borom kër ga mu ne la monter miir nga tiim de jarumaa laaj waaye yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel rek xam ne sunu liggéey dafa jëm ci laaj question yooyu noonu. bu ñu paree ci loolu ñu dem ci ñetteelu question bi boobu aussi day laaj maanaam kër gi quel est le principal matériau du sol de votre logement maanaam kër gi lépp lan moo ci ëpp solo ci suuf maanaam suuf si perron lañ koy faral di woowe lu bari maanaam dër bi ci suuf lan mooy jumtukaay bu ëpp luñ ci def bu boobaa nag boobu aussi dina nga gis ñu proposé ñu am ay ki ñu jox lu mel ni ciment carreau sable argile bal blanco ak euh, planche de bois ku ci nekk nag ak euh, na ko doole mais boo xoolee ñii ciment la ñuy def daal di koy dër ñii wuti karo ñii wuti suuf da bàyyi ko noonu kër gi du am benn dër ñii nag ban lañ koy defee et cetera boo xoolee lay ci la fa nekk ak tontu ba mu la jox nga daal di jël dugal ci tablette bi soo ñu paree ci boobu tey laajaat quel est le principal matériau de la toiture de votre logement maanaam kër gi tabax nga ko am na toit ci kaw maanaam am na lu ko tiim li ko tiim nag ñaare dañ naan zinc lay doon wala dafa doon tôle wala dafa doon ciment lu mel ni terrasse yooyu boobu aussi boo xoolee tablette bi da lay yombalal liggéey sax ndax daf lay jox ay tontu yu bari foofu noonu tontu yam lay jox nag bi ci jiitu day doon beton ciment ndax dañ koo terrasse béton ciment wala dañ koo def ardoise rek. wala ay cinq dong la wala dañu ñax dong la wala dañ ko dugal ay caru garab rek bu ko defee ci tontu yooyu nga xool tontu ba la ca jox ba ca gën a méngoo nga sélectionné ko maanaam nga jël tontu boobu daal di koy valider dugal ko ci biir tablette bi su ko defee nag ñu jàll ci beneen question bi M 114 du provient principalement l'eau que vous buvez actuellement dans votre ménage maanaam voilà léegi ñu ngi ci ñetteelu pàcc bi boobu aussi day dem ci lépp luy xar kanamu kër gi nga dugg maanaam boo ñëwee dañ naan les caractéristiques du logement mooy troisième ñetteelu pàcc pàcc bi caractéristique du logement mooy li ma wax léegi rek xar kanamu kër gi nga dugg foofu nag dina am ay laaj yu bari yooyu ñu fay laaj bi ci jiitu mooy statut d'occupation du logement maanaam borom kër gi nga fa fekk am na loo waxtaanoon ak moom ba mu am ay leeral yu mu la joxoon moom ci boppam. léegi nag da nga ñëw ci kër gi pour am ay laaj yoo ko laaj statu d'occupation du logement maanaam foofu moom danga koy laaj kër gi nga xamante ni fii laa la fekk ndax yaay borom ndax da ko luwe loué mala wala wala boo ci boobu nag boo duggee ci tablette bi dana la jox ay tontu yu bari maanaam tontu yi nga xamante ni jàpp nañ ne moo war a moo war a mën a nekk maanaam mooy borom wala dafa am ku mu ko bokkal wala dafa loué wala moom dafa am ku mu bokkal loué wala dañ ko ko loué dañ ko jox noonu ci ci teeyu bakkanam dañ ko ko abal daal bu ko defee nga tànn ci yooyu daal di koy dugal suñu jàllee ci ñaareelu question bi quel est le principal matériau des murs de votre logement maanaam li nga xamante nii ñoom la ñu jël tabaxee ko kër gi miir bi e, dafa am jumtukaay yi yuñ koy defare jumtukaay yi nag dañuy am yu ñuy proposé yu mel ni ciment yu mel ni banco yu mel ni paille yu mel ni bois ak pisé loolu lépp boo koy xayma mooy lépp lu ñu mën a permettre li ñu mën a dimbali ba ñu mën a tabax lu mel ni ban wala lu mel ni ciment wala lu mel ni ñax wala lu mel ni bant loolu daal di jumtukaay yoo na war nañ ko mën a defaree kër nga xool laajte fii nag euh, dama ciy def benn digression tuuti rek dugg ndax di nga dugg ci kër laaj borom kër ga mu ne la monte miir nga tiim de jarumaa laaj waaye yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel rek xam ne sunu liggéey dafa jëm ci ñu laaj question yooyu noonu bu ñu paree ci loolu ñu dem ci ñetteelu question bi boobu aussi day laaj maanaam kër gi quel le principal matériau du sol de votre maanaam kër gi lépp lan moo ci ëpp solo ci suuf maanaam suuf si perron lañ koy faral di woowe lu bari maanaam dër bi ci suuf lan mooy jumtukaay bu ëpp luñ ci def bu boobaa nag boobu aussi dina nga gis ñu proposé ñu am ay kii ñu jox lu mel ni ciment carreau sable argile bal blanco ak planche de bois ku ci nekk nag ak euh, na ko doole mais boo xoolee ñii ciment la ñuy def daal di koy dër ñii wuti carreau ñii wuti suuf du bàyyi ko noonu kër gi du am benn dër ñii nag ban lañ koy defee et cetera boo xoolee lay ci la fa nekk ak tontu ba mu la jox nga daal di jël dugal ci tablette bi. so ñu paree ci boobu tey laajaat quel est principal matériau de la toiture de votre logement maanaam kër gi tobax nga ko am na toit ci kaw maanaam am na lu ko tiim li ko tiim nag ñaare dañ naan zinc lay doon wala dafa doon tôle wala dafa doon ciment lu mel ni terrasse yooyu boobu aussi boo xoolee tablette bi da lay yombalal liggéeyu sax ndax daf lay jox ay tontu yu bari foofu noonu tontu yam lay jox nag bi ci jiitu day doon béton ciment ndax dañ koo terrasse béton ciment wala dañ koo def ardoise rek wala ay seng dong la wala dañ ñax dong la wala dañ ko dugal ay caru garab rek bu ko defee ci tontu yooyu nga xool tontu ba la ca jox ba ca gën a méngoo nga sélectionné ko maanaam nga jël tontu boobu daal di koy valider dugal ko ci biir tablette bi su ko defee nag ñu jàll ci beneen question bi M114. d'où provient principalement l'eau ko bu buvez actuellement dans votre ménage boo duggee ci kër gi di nga am looy laaj lu jëm ci wàllu jumtukaay li muy waa kër gi jëfandikoo ngir naan ko defee dañ la naan ndox mi ngeen di jëfandikoo ci kër gi fan la jóge ndax eh, xaw mbir ne ndox yi ci kër gi danay jóge ci teen yi danay jóge ci robine yi jóge ci SDE wala mu jóge ci beneen source loolu la tubaab naan source wala mu am feneen fu mu jóge boo xoolee boo ñëwee ba foofu nag am na benn languette wu ndaw wu nekk ci tablette bi te lay proposé nga bës fa boo ko bësee dina la jox ay réponse yu bari rep ay tontu yu bari la lay jox boo xoolee nga xool ban moo ci méngoog bi la borom kër gi wax nga daal di ko ciy def te bu ñu réeré woon biir kër yu bari fii Sénégal robinet public robinet eau courante dans le ménage maanaam SDE mooy dugal ndox ci kër yi bu ko defee bu robinet amee ci kër ga ñu sélectionné boobu bu dee ci gox bi nga xamante ci àll ba aussi réere wuñu mbir la ñu ci bari ci teen yi la ñuy dem daal di rooti yóbbu ca kër gi ñu sélectionné ça dépend day day day tollu nag ca lañ ñu laaj borom kër ga mu tontu ñu ca loolu la ñuy jël suñu paree ci boobu ñu jàll ci beneen question bi quelle la principale source d'énergie que vous utilisez pour l'éclairage de votre ménage maanaam kër yi dañoo bëgg di nit lu bu guddi gi jotee dafay lëndëm dañu soxla ay jumtukaay yu xarala di ci jëfandikoo lu mel ni tablette bii tey day dem ba ci kanam courant ba wàcc ñu bëgg koo sarse yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante nii moom mooy day dem ci question bi boo xoolee da lay naan électricité publique la Sénélec moo indi courant ca ndox ma ca kër ga muy jégalu lampe tempête la ñu yor ca kër ga bu dee ci àll ba ak yenn gox yi ci Sénégal wala sondeel la ñuy taal wala lampe gaz la ñuy taal foofu aussi boo xoolee dañ lay jox tontu yu bari même bu fekkee ne tontu bi la borom kër gi jox gisoo ko ci yii aussi mooy autre à préciser bi nii ci suufa suuf foofu dañ laa ubbil pàcc boo xamante nii danga koy boo ko tàppee mën ngaa dolli li nga xamante moom la la borom kër gi jox comme tont suñu weesoo ci boobu ñu jàll ci beneen question bi question bi mooy quel est le principal type de toilette que vous avez dans votre ménage maanaam gaanuwaay yi nga xamante moo nekk ci biir kër gi ma tubaab mooy faral di wax toilette mais lu ci bari dama euh, boo demee ci suñuy kër ay gaanuwaay ñoo fay ne mooy loolu lañu naan toilette léegi toilette yi nag gaanuwaay day am ay façon mooy yi nga xamante ni moom la tubaab bi defar bu ñu ñëwee ci kër gi foog ñu laajte ko ba mën a leerlu ban façon la am na turc boo xoolee ci tablette bi loolu lañ ñu jox am na turc am na chaise anglaise am na fosse perdue boo xam ne trou lay doon rek directement bu ko defee ci ñett yooyu aussi di nga dem ci kër ñu ne la douche amu fi wanag amul ci kër gi maanaam wanag su ko defee nga tànn ban la ci méngool nga jàll ci beneen bi kon fii dañuy jël ne ay toilette turque la ñu tànn toilette turque daal ko ci dugal suñu paree nag dañuy gis ne ci biir tablette bi am na benn trait bu xonq xonq la ma la mu orange mais trait boobu boo xoolee mooy cent dix-septième question bi moom dafay gën a fësal ne ndax kër gi am na yenn jumtukaay yu sew yi nga xamante nii mu ngi ndax ñu koy laaj ndax am na ci kër gi waaw am déet foofu nag ñaari tontu la rek waaw la walla déet loolu lañuy gën a xaar ci borom kër gi parce que foofu aussi ñun ñi nga xamante ñooy ndawalu l'ARTES ak CAREF war nañu mën a gën a bàyyi xel ci loolu xam ne fii occasion la pour gagner temps bañ a gën a yàggal parce que waratu waruñu may ki nga xamante mooy borom kër gi mu développer lu yàgg-yàgg ci détails yi parce que fii bu ñëwee ne avez les éléments suivant dans votre ménage est-ce que jumtukaay yi am na ci kër gi ne ndax rajo am na ci kër gi waaw waa déet bu dee waaw la nga jël waaw bi bu dee déet la nga jël déet bi ndax fi ñuy seetaanee xibaaru réew meeg bitim réew am na ci kër gi ñaare boo koy bërëm bëgg a fàcce sax ba mu gën a xaw a jafe ci moom nga ne ko ndax télé am na ci kër gi ndax mooy kàllaama gi ñuy gën di faral di jëfandikoo bu la nee waaw la nga jël bu nee déedéet nga jël déedéet maanaam lépp luy téléphone am na téléphone yoo xamante nii du téléphone yu ñuy yóbbaale moom dafa tegu ci kër gi rek am fuñ ko daaj ci kër gi di ko jëfandikoo téléphone laaj leen ndax yooyu am na ci kër gi bu nee waaw ñu ne la am na ci kër gi bu dee déedéet bu la nee déedéet it nga jël bi nga xamante moom la ñu méngoog ak tontu bi mu la jox euh, jumtukaay yu xarala yi aussi yu ci mel ni ordinateur ñu di ko woowee ordinateur boobu aussi dañ nga laajte ndax am na ci kër gi waawam déet bu amee dana la tontu su amul it dana ne amu fi nga coché ma nga jël fi nga xamante moom méngoog lam la tontu euh, abonnement internet. maanaam lépp loo xamante ni ay jumtukaay yu xarala yu lay mën a dimbali ba nga xam man la nga am ay information yu bari ci àdduna bi am na ci kër gi mbaa amu fi mu leeral la aussi nga jàll ca ba ca topp ndax euh, fii aussi dañuy ñëw ci terme ay réfrigérateur congélateur da ngay ñëw ci kër gi ne leen ndax réfrigérateur am na fi walla congélateur mu doon ay terme yoo xamante nii terme nasaraan la mais mën nañ ko jaaree ci ñoom ba xam exactement fan la ñuy dem ak ñoom ba ñu jox ñu réponse yi ñu soxla ah kër gi de tey nga jaar ak borom affaire mbir mi de daa tàng de fi ñu toog nii moom ñu ngay ñaq sax waaw ndox mu sedd amu fem bu ko defee mu ne la di fii de ndox mu sedd ah li koy seddal amu fem bu ko defee ñu jaare ci terme yooyu ba mën a génnee li nga xamante moom la ñuy moom la ñu soxla comme réponse voilà voilà ñu ma frigo am na ci kër gi bu tontoo waaw nga jël bu tontoo déedéet nga jël bi nga xamante moom la tontu suñ ñëwee nag ci bouteille de gaz foofu aussi njaboot yi dañuy am tolof tolof ngir tontu ci loolu parce que boo leen nee ndax bouteille de gaz am na ñenn ñu duñu am compréhension parce que ñu di ko déggee noonu mën nañu ñëw rek ci jublu ne ndax booy togg ci waañ wi lan ak lan ngay faral di jëfandikoo moom mën na ñëw indi la ci xeetu matt lay jël voilà am nga amoo matt mais bu fi matt amul looy jël mu ne la këriñ bu këriñ amul looy jël mu ne la ah man de am naa fi gaz bu ko defee nga laaj ko ndax gaz bi moo ko moom exactement mu ne la am naa fi gaz nga ne ko ok nga daal di sélectionné bu amul it nga sélectionné mooy non. bu ñu jógee ci gaz boobu noonu dañuy joxaat beneen laaj am ndax kër gi am na fer bi ñuy paase boo xam ne day jël wàllu courant loolu nag aussi ñaari tontu la parfois dinañ leen fer de na ci kër gi nga gaawtu jël. te doo bàyyi xel ci fer à repasser électrique maanaam ndax feeru courant am na ci kër gi waaw am déet suñu paree ci boobu dañuy dem ci beneen question motocyclette bicyclette boobu am na ci kër gi walla amul ci kër gi motocyclette mooy lépp lu jëm ci waruwaayu ñaari tànk yooyu te ñu koy jëfandikoo lu bari ci kaw tali bi euh, ak li nga xam moom lañ tàmm di wax welo boobu aussi waaw am déet nga jël ci bi nga xamante moom lañu war a sélectionné beneen bi ci topp mooy dañ la naan ndax kër gi am na waruwaay waruwaay nag boo koy dégg am nay xeet yu bari mais bii dañ naan ndax am na ndaamaar ñenn ñi sax naan ko tara copine mais ndaamaar mooy li gën a siiw ci kàllam bu boobaa aussi nga jël waaw déet ndax kër gi am na maanaam fii charrette dina xaw a jafe ci ñu tekki ko ci wolof sax mais dinañ jàpp ne ah ndax kër gi am na fas am na mbaam. est-ce que di nga koy faral di jëfandikoo di ci liggéey voilà bu ko defee ci foofu buñ ñu fa jaaree rek danañ mën a génnee terme charrette bii nii ah, waaw ba yegg si ci charrette bu ko defee ñu jël waaw wala déet ndax kër gi am na lépp loo xamante day tax bu yaram tàngee ñu mën ci féexlu maanaam du jëm ci lu ndox déedéet waaye loo xamante nii ñu ko ñu daan koy woowee ndax climatiseur am na fi ci waxu wolof bu ko defee boobu aussi nga jël ci tontu. ndax euh, beneen bi aussi ventilateur la moom lañ koy faral di wax ndax ventilateur am na fii ah, ndax wantiloo am na ci kër gi ñu ne voilà waaw am déet bu defee nag ñu seetlu ne ñetteelu tontu ñetteelu pàcc boobu euh, tontu boobu moo koy jeexal ñu dugg ci suuf à droite suñu loxo ndeyjoor ci suuf ñu def nañu continuer ñu càmbaraat ñeenteelu poñ bi nga xamante moo des ci questionnaire u ménage ñeenteelu poñ bi moom day laaj naka la kër gi faramfàccewoo kër gi naka la faram-fàccewoo ci nit ñeeg ci gone ya fa nekk ak yooyu daal euh, première question bi danaan y a-t-il des enfants âgés entre 0 et 18 ans vivant dans le ménage foofu dañuy laaj ndax kër gi am na ay gone yuy door a juddu ba am fukki at ak juróom-ñett te dund ci biir kër gi loolu borom kër gi ba léegi moom la ñuy laaj loolu <coughs> bu ko defee foofu aussi borom kër gi day tontu waaw la wala déet foofu foog nga may ko aussi mu jël temps wu réflexion parce que ñaare yi suñuy waajur du ñuy faral di def loolu di wàññi njaboot gi nekk ci kër geeg yooyu moo tax ñaare kër goo ko def borom kër ga dana xaw a jaaxle mais jëlal sa temps gën ko reposer posé waat question bi gën ko laajaat ci beneen teggin bu ko defee dana la mën a dimbali ba nga dem ci beneen question deuxième question bi nombre d'enfants âgés entre zéro et dix-huit ans vivant dans le ménage foofu maanaam booy xool ci bu njëkk ba dañuy laaj ñaata gone ñoo ñoo nekk ci kër gi ñaata gone yu am zéro ba fukki at ak juróom-ñett maanaam yu door a ba am fukki at ak juróom-ñett ñoo nekk ci biir kër gi ndax am nañ fa waaw am déet nga tontu bu ñu ñëwaatee ci beneen question bi dañ naan ñaata gone. ñaata gone yu am yuy door a juddu ba am fukki at ak juróom-ñett ñooy dund ci biir kër gi bu ko defee foofu borom kër ga dana la jox tontu bi ci war bu dee juróom la ma bind juróom bu dee ñett la ma def ñett bu dee amu fa aussi ma def amul daal di bind zéro ñun beneen tontu question bi danaan parmi ces enfants te zéro à dix-huit ans combien vous ont été confiés maanaam fii dañuy laajte gone yi nga xamante moom la la joxoon ci tontu. ne la ah man de amoon naa fi juróomi gone am naa fi juróomi gone ci juróomi gone yooyu foog nga laaj ko ndax amul gone yuñ ko dénk ci biir kër gi te ci juróomi gone yooyu noonu bu ko defee foofu aussi moom dana la tontu bu amee benn gone dana la tontu bu amee ñaar dana la tontu su fekkee amul it dana la tontu nga bind ko bu ñu jàllee ci beneen question bi y a-t-il des enfants âgés entre 0 et 18 ans du ménage confiés ailleurs ba léegi aussi fii ñuy laajaat ndax amul ay gone yoo xamante ni dañuy door a juddu ba am fukki at ak juróom-ñett ñu dénkaane leen feneen boo defee foofu aussi borom kër gi ñaari sax danay xaw a jaaxle mais bu tont bu laaj ba leeree ci moom rek dana la jox tontu ba ca war suñu paree ci loolu ñu dugg ci maintenant ñu laaj borom kër gi nombre d'enfants âgés entre zéro et dix-huit ans du ménage confiés ailleurs. Nombre d'enfants âgés entre 0 et 18 ans du ménage confiés ailleurs ndax amul gone yoo xamante ni ñoom dañuy door a judd ba am fukki at ak juróom-ñett ñu dénkaane leen feneen bu defee foofu aussi ñu nga daal di complété ak li nga xamante ni parce que fee dañ ko laajoon ndax amul ndax amul gone yu mu dénkaane woon ci question 203 bi mu ne waaw ñu laaj ko ci ñooñu nag mu dénkaane ñaata lañu mu daal di préciser da gis ne fii day indi ñaari gone la ñu jàll ci ba ca topp deux cent cinquième question bi où sont où ont-ils été fan lañ leen dénkaane maanaam ñaari gone yooyu mu la leeral ne dénkaane na ko fan lañ leen dénkaane ah mën na leen dénkaane ci ay waajuram mën na leen dénkaane daara mën na leen dénkaane ci école ba nga xamante fa lay jànge mën na leen dénkaane aussi ca ay dëkkandoom mën na leen dénkaane aussi jëfa ko neex loolu day mooy autre à préciser boobu la demee ba jox la foo xamante bokkul ak ci yi fi ne nga dolli ko ci bu ko defee ñu nga coché fii da ngay coché parce que am nay am nay carré yu ndaw yu fa ne fa ngay coché daal di jël yi nga xamante moom la intéressé beneen bi nombre d'enfants âgés entre 9 et 16 ans résident dans le ménage ñaata gone yu am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak juróom-benn ñoom ñoo dëkk ci biir kër gi nga laaj ko borom kër gi bu ko defee moom foofu aussi mu jël am te gone yam la tuddaloon dina ci xool ñan ñoo ci am juróom-ñeent jàpp fukki at ak juróom-benn nga mentionné leen kon fii ñaari gone la ñu bind ñaari gone yi suñu paree ci boobu ñu dem ci nombre total de personne résidant dans le ménage. ah fii nag day doon kes day doon laaj bu xaw a jafe parce que di nga dugg ci kër ne leen mais seen kër gi ñaata nit a fi yeewoo ak sunu aada ak sunuy cosaan ak ni ñu mel te ñu ne ah kii kat moom ay mbiram <laughs> waaw mais loolu la dañuy permettre rek ñu gën a xam ne fii la ñu ñuy xaare ñun ci terrain bi pour mën a jànkuwanteeg situation yu mel nii euh, di nga dugg ci kër laaj ko ñu bañ laa tontu sox ci loolu mais lépp rek nga mën a rassurer waa kër ga dalal leen won leen ne kat ñun ñëw ñu fi ngir xam ñaata ngeen mais lii. ab euh, di solo bu ñu laajte sant rek ñu war ko def mu war a ji dellu si ci askan bi looloo tax ñuy laaj bu ko defee borom kër ga dana la dem ba jox la ñaata nit ñoo yeewoo ca kër maanaam ñaata nit ñoo dëkk ci biir ci biir këram googu noonu ko defee boo xoolee moom mooy bi nga xamante mooy jeexal pàcc wu njëkk bi bu jeexee nag dangay gis da defal terminé en français mooy jeex na bu paree dana la génneel nag benn kii bu weex ci tablet bi suñu ko génnee génnelee di nga gis ñu bind ci enregistrement des informations du ménage de Rokhaya Cissé maanaam Rokhaya Cissé nga bindoon ca booy tàmbali ca tàmbali ba da gis ne day jël lépp li nga bindoon ci tablette bi di ay données di ay information lépp lañ ca jëloon da koy bind léegi nag mu laaj la nga enregistré ko maanaam nga bàyyi ko ci biir tablette bi boo bësee enregistré léegi boo xoolee dugg na ci tablette bi léegi ci la ñuy door a pare ci question questionnaire ménage léegi nag bu ñu jógee ci questionnaire ménage bi dañuy jàll ci beneen aspect bu ñuy tuddee questionnaire enfant ok waaw dañuy jàll ci li ñuy woowee questionnaire enfant questionnaire enfant aussi ay laaj yu ñuy jagleel gone yi maanaam gone yi bi nga xamante nii am na juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak juróom-benn ci kër gi euh, foofu boo xoolee dañuy bind information yi nga jotoon a joxe ci ménage bi. Roqaye Cissé joxe ñaata gone ñoo fa ne maanaam ménage bi njël kër gi ma dem njël ba am na ñaari gone yu am juróom-ñeent bu fukkeet ak juróom-benn euh, boo xoolee déjà ci tablette bi dañuy bind nombre d'enfants déjà enregistrés zéro sur deux ce qui veut dire que kon xale yi xamoon nañ ne rek ñaar lañu mais amagul kenn ku ñu jël ci moom ay jumtukaay ay information pour moom ko ci dugal ci lañ jëm si léegi fii bu ñu xoolee Euh, laaj bu njëkk bi mooy prenon de l' enfant xale bi nu mu tudd xale bi mën nañ jàpp ne Réa la tudd dama bëgg mu gaaw xale bi mu ngi tudd Réa maanaam mu bind Réa xale bi nu mu sant ñu ne Ndooy la sant jël euh, kooku sama kal la ma jël Ndooy suñu pare damay jàll ci ba ca topp am na beneen question question bi mooy âge de l'enfant en en année révolue maanaam xale bi ñaata at la am ci jamono bi ñuy wax ak moom bu ko defee foofu dana ñu mën a leeral xale bi kat ah am na parce que fii soxlawuñu xale boo am juróom-ñaari at su la ko joxee na sa xel del si parce que dañ ko laaj xale boo am juróom-ñeent ba fukki at ak juróom-benn ah, mu ne ñu xale bi de am na fukki at ak ñaar ñu jàll daal di ñëw fii dugal fukki at ak ñaar xale yi. suñ dugalee fukki at ak ñaar jàll ci beneen question bi xale bi aussi sexe bi la ñuy laaj fii xale bi góor la walla jigéen la bu dee góor la ma ñëw ci wàllu càmmoñ masculin ma daal di cliquer masculin suñ ñëwee ci quelle est la principal langue parle à la maison par l'enfant fii nag duñ ko laaj gone gi mais waajuru kër gi la ñuy laaj ba léegi ci moom lañ nekk pour mu préciser wu bu baax a baax Euh, quelle est la principale langue parlée à la maison par l'enfant ñu laaj waajur bi gone gi ban kàllaama lay faral di bari lu muy jëfandikoo ci kër gi ñun nag suñuy tradition ñu ci bari dañoo gàlle mais boo demee ci kër gi ñaare bu dee pulaar ba mu ngi jéem a sàmm pulaaram di ko wax ci kër ga bu dee séeréer bi aussi kazalika bu dee keneen nit mu ngi ko def ah waa kër ga ay wolof la ñu ne ah ñun de wolof la gone gi yëpp lu muy wax ñu daal di jël wolof ñu jàll ca ba ca topp muy bi lan la doon ci yow ndax nit dana xale na nekk yow ci kër mais du ñu xam lan la bokk ak yow mais bu fekkee ne enquête bi ñëw na lii diisoo bi dana mën a may yow animateur bi nga laaj bu waa kër borom kër gi gone gi lan la bokk ak moom gone gi dana dana leeral moom borom kër gi ah kii de sama doom la bu dee du doomam it dana la sama jarbaat la bu dul jarbaat tamit dana la won lan la mu doon ci moom nga daal di jël boobu noonu suñu xoolee benn bi ca topp mooy cet enfant a-t-il été confié dans le ménage xale bi dañ ko dénkaane ci kër gi foofu laaj la laaj bi waaw mbaa déet lay laaj lay lay xaar ci tontu ah waaw dañ ma ko dénk ñu ne ah dénkuñu ma ko parce que day xaw a woroo ci bu la nee dañ ma ko dénk bu ne waaw rek tablette bi dana am lu mu la woon parce mënul doon sa doom ba pare ñu dénk la ko ca kër léegi bu ko defee ñu jàll ci beneen laaj bi laaj bi cet enfant fait-il un travail pour gagner de l'argent fi nag ñaare dañ ko wax sax jaboot ñu xaw laa xeelu waaye xamal na yow mooy la ma waxoon sànq ci njëlbeen rek sa liggéey ngay def euh, da nga ciy bàyyi xel bu baax a baax xale bi ndax dafay am liggéey bu muy def ngir am ci dara bu boobaa dafay am ñetti tontu yu tablette bi joxe oui très souvent ah dana koy faral di def oui occasionnellement boobu aussi saa su ko yàlla may moom jot rek da koy faral di def ah beneen bi ñu ne déedéet abadan du ko mas a def boo xoolee ñett yooyu ay tontu la yoo xamante nii dañ koy xaar ci boroom kër gi mu ne ah gone gi de am masuñoo gis mu def loolu du ko def maanaam du wuti xaalis daal est-ce qu'il arrive à l'enfant de manger M314 ndax xale bi dinay faral di yelwaani ñu ne ah moom it ñett yu tontu yooyu lay laaj oui très souvent oui occasionnellement non jamais dina ko faral di def wala ah occasionnellement la koy def defi heure bu ko yàlla xéeree mu am ci jot rek la koy defi wala mosu ko def bu boobaa aussi borom kër gi dana am bum la tontu bu ne masul def ñu jël boobu euh, m question 313 cet enfant vit-il avec un handicap ndax xale bi am na laago parce que ñaare dañ naan handicap dañuy yaakaar ne rek mooy kuy soox ma la ko lafañ waaye nit dana am façon laago bu ne maanaam xale bi toog ci kër gi te bu bëggee gis-gis-gisam jafe xale bi nga xamante ni aussi am na ay tolof tolof boo xoolee dana am lu bari luñ la ci jox ci ci ay tontu fii nii xale bi mënul wax parce que buy wax wax ji day rate xale bi dafa am par exemple tànk yi dañu bañ xale bi xel mi neexul yooyu yëpp ay handicap la yoo xamante nii war nga ko laaj ci kër gi bañ jox la ko bu ko defee nga préciser ban la ci doon ah bu dee bët yi ñoo neexul ñu jàpp ne bët yi neexul. xale bi ndax am na fu muy dem di fa sàkku ji xam-xam cet enfant fréquente-t-il un lieu d'apprentissage xale bi am na fu muy dem di fa sàkku ji xam-xam ñu ne ah waaw am na fu muy dem di fa xëy ok bu ñu ko defee rek dañuy gis ne dafa am beneen tableau bu génn tableau boobu dana am données relatives à chaque enfant du ménage age entre 9 et saison ans fréquentant un lieu d'apprentissage fii aussi xar kanamu gone yi nga xamante nii moom moo dëkk ci gone ci kër gi am juróom-ñeent ba fukki at ak juróom moom lañuy jël ay ay ay données waaw boobu nag bu ñu seetloo dañuy am ay laaj yu ñuy jagleel maintenant ba léegi waajuru gone gi foofu dañ koy laaj xale bi fan lay jànge ci ban bërëb lay jànge lay sàkku jee xam-xam bu ko defee fii dañ naan école élémentaire lay jànge maanaam école ban école ñu ne ah école 2 la xale biy jànge ñu ne waa école 2 bu ko defee beneen question bi ci toog mooy adresse du lieu d' apprentissage xale bi fi muy jànge ban gox la école 2 boobu noonu nga tudd ci ban gox la nekk ci biir Mbour bu dee Mbour la wala Dakar ah école bi day mu ngi ci kon quartier bu ñuy tuddee Santassou ñu ne xale bi école boobu muy jàngee. école nguur gi la wala école boo xamante nii ay nit a wax xale bi di am lu mu fay fay wala école franco arabe publique la école boo xam ne dafay jàng français di fa jàng arabe wala école franco arabe privé la boo xamante ni moom it da ngay fay ndax daara la boobu aussi boo xoolee maanaam fépp fu xale bi war a mën a dem rek te mu jaar yoon mu di fa sàkku xam-xam danañ la ko fa jox bu ko defee fii aussi dañu la naan nga tànn ci ban moo méngoo tontu bi mu la jox. fii dañ jàpp ne xale bi école française publique la ñu daal di cliquer maanaam jël bi nga xamante mooy école française publique suñu paree ci loolu ñu ne waaw xale bi kat ñaat ñaata maanaam niveau du lieu d' apprentissage fi muy dem di fa sàkku ji xam-xam ci ban néeg la tool ñu ne ah ñu xale bi de mu ngi def euh, CM1 ñu ne ah man la xale bi de bi muy duggook léegi def na juróomi at ko defee foofu yow mu nga animateur bi yow yaay xool méngale bi xale bi duggee léegi def na fa juróom at kon ban classe la war a def exactement su ko defee foofu aussi da gis ne dañu dañu joxe ay rubriques yu bari maanaam CI ba dem ba ci première ba année terminal bu ko defee ñu sélectionné foofu aussi ban moo ci méngoo li xale bi di suñ demee ci question cent 403 à quel âge cet enfant a commencé à fréquenter un lieu d'apprentissage pour la première fois le préscolaire n'est pas concerné ñu ne la xale ci ban at la tàmbalee dem ca bërëb di fa sàkku ji xam-xam ya ñu ne mais nag bokkul ak li nga xamante moom la xale bi njëkk dem di ko jànge ji ci daara yu ndaw ndaw yi nga xamante xale bi bi mu amee ñetti at ba jàpp juróom benn at te ñu koy woowee préscolaire ñu daal foofu aussi dafa yam tontu yu muy laaj tontu bi ay at la ñaata at la amoon bi muy door a dem ca l'école ba ñu ne amoon na juróom-ñaari at ñu daal di bind juróom-ñaari at dans quelle langue l'enfant apprend dans son milieu ou bien dans son lieu d'apprentissage xale bi bu demee ca bërëb boobu ca école 2 boobu noonu ci ban kàllaama lay jànge ah kàllaama gi muy jàngee ca l'école ba de xale bi français lay jànge te fii sax ñaare di nga dem ci suñuy waajur ci kër yi ñuy dem nga laajte mère bi ne la man de est-ce xale bi du wolof lay wax mais foofa ñu ci bari dañuy interpeller xale bi pour mu mën a joxe les réponses adéquates ak réponses yi nga xamante ne moom lañuy ñuy xaar ak tontu yi euh, bu ñu jàllee ci maintenant ñu ne ko waa gone gi mas naa def njàng mas naa jiitu ci njàng bu bokkul ak bii ndax mas na def préscolaire bu ko defee foofu aussi dina la ne waaw mbala déet nga jël ci ban la ñu ne xale bi ndax mas naa dem daara. l'enfant a-t-il déjà fréquenté le daara ou fréquente t en ce moment le daara ndax xale bi mas naa dem daara wala ba léegi nii bu jógee école nasa école nasaraan ba dañ day continuer di dem ca daara ba bu ko defee ñu ne waaw mu nga cay jàng ba léegi xale bi nu muy demee comment cet enfant se rend-il principalement à son lieu d'apprentissage xale bi li ci ëpp buy dem di sàkku ji xam-xam ca bërëbu école de boobu day dox wala day jël ndaamaar wala daf dañ koy yóbbu ci moto bu ko defee yooyu aussi mu doon loo xamante ni dañ koy joxe ay réponse ah ñu ne ak gone gi day bu xëyee day dox ñu daal di jël marche daal di koy adapté ci réponse combien de temps met l'enfant pour arriver à son lieu d'apprentissage ñu laajte fii nag dañuy xayma xayma bi mooy xale bi mënuñu xam exactement précisément combien de temps il fait entre l'école et sa maison maintenant fii dañuy xool ah ba waay waajur bi ne ko mën de yaakaar naa bu defee fukki minute ak juróom xale bi dina yegg boo xoolee ci biir euh, tablette bi ci biir jumtukaay bi dañ lay jox benn fourchette benn dure dure bi day def moins de quinze minutes maanaam lu motul fukki simili ak juróom ak loo xam ne moins entre quinze ay vingt neuf minutes maanaam lu tolloog fukki mi simili ak juróom ba ñaar fukki simili ak juróom-ñeent ba ba ñu dem ba ci lu ëpp juróom-benn fukki simili foofu aussi ñu xool bi ci gën a yenu maanaam ci diggante fi xale bi dëkk ak école bi fi mu nekk ñu jël ko kon ñu jàpp ne foofu fukki minute ak juróom lu ko moy xale bi dina yegg école ñu laaj foofu kan mooy topp kan moo toppatoo njàngu gone gi kan mooy topp njàngu gone gi dinañ koy dégg ñu bari ci kan bu xale bi ñibbisee kan moo koy jàngal waaye déedéet kan mooy topp njàngu gone gi mooy fii xale bi bu bu maître am soxla woon waajuram kan mooy dem kan mooy toppatoo xale bi ci njàngam ci buy dem école solin baag xool ba di ko jàppale ci lu bari ba bu waa école soxla woon it ne sa papa mbaa yaay na ñëw kooku mooy taxawu gone gi kon kooku mooy question boobu la ñuy xaar ci moom foofu noonu ñu laaj nag nañu tànn ci ñooñu ndax papam la ndax yaayam ndax papam ak yaayam la ndax nijaayam la wala tantam walla magam la ak rakam ndax maamam yi la ndax kenn du ko toppatoo aussi ñu xam daal di ci tànn bi ci war ñu ne ah loolu de papam ak yaayam yëpp koy toppatoo ñu ne fii niveau d'instruction de la personne qui suit principalement les études de l'enfant à la maison maanaam ñu nga xamante ne nii papaam ak yaayam ñoom ñooy topp gone gi ci njàngam fan la seen njàng tool seen njàng ah ñu daal di xool fii aussi ci tablette bi flèche bi bu ñu ko cliquer dañuy joxe aucun maanaam amul mos jànguñu ah xaw nañu jàng tuut wala fii la ñu yem wala fële la ñu wala daara rek lañ mas a jàng foofu aussi ñu jël ñu ne ah ñii de mas nañ jàng ba dem ci école yi gën a kawe maanaam ñu jàpp ne def nañu ay études supérieures dem nañ université. bu ñu xoolee question cent 414 bi moom aussi foofu lépp lu jëm ci wàllu koom-koom ci li ñuy jëfandikoo ci njàngu gone yi foofu loolu lañu bëgg a xam combien évaluez-vous annuellement les dépenses éducatives en CFA au cours de cette année pour cet enfant mettre zéro si aucune dépense n'a été effectuée fii nag dañuy bëgg càmbaar xool ba xam xale bi lépp luy alal loo mas a def ci moom ci at bi bi muy dem école ba ni école tëjee wala ci ñun biñ ko fekkee ci enquête bi bi école tijjee ba jamono jooju noonu mu jox la ko maanaam laaj bu njëkk bi frais de scolarité y compris les frais d'inscription maanaam fii frais de scolarité dafay am ci ñoo xam ne dañuy jàngi mais lu tee weer wu jot dañuy fay foofu ci ngay waxtaan ak waajur sa doom fi muy jàng weer bu nekk day fay ñu ne ah déedéet mais kat ah bu dul fay weeru day est-ce que bu école di ci di tijji du am lu muy fay ak ñu ne waaw man de bu école di tijji dinaa yi fay 2000 francs par exemple loolu moo tudd inscription yi ñu daal ko ci dugal ah <coughs> ñu ne fii dañu bëgg a xam livre et fourniture ndax xale bi danay wut ay jumtukaay yu mu nafare nafar boo koy dégg mooy fu mu jàngee ci yenn kii ay jumtukaay yu mel ni livre walla fourniture waajur bi foofu aussi dina am ay jafe-jafe yu bari parce que ñu ci bari duñ ko jàpp ba mën laa jox chiffre exact mais aussi foofu suñu takk ngay demee rek animateur bi nga doon war nga mën a xam ne xale bi amoon nay référence yu ma jëloon ci moom cm lay def def na tant de d'années tant de mois ci te bi mu école tijjeeg léegi def na nangami weer kon war na jënd lii ci kay war na def lii ci kay ndànk-ndànk bi ci xëccoo waajur yi ba mu jox la éléments yi ci war bu ne ah man de yaakaar naa def naa ci moom junneeg juróom-benn téeméer ñu daal di koy bind daal di jàll ci beneen laaj bi beneen laaj bi mooy frais de transport scolaire xale bi day faral di jóge kër ga di dem fa muy jàngi est-ce que du faral di am lu ñu koy jox ngir mu di ci paas ngir mën a wàññi dox beeg bu ko foofu aussi xel mën na jàpp ne waajur bi mën na ah mën na du ñàkk ma di ko jox paas parce que fii ak école ba soriwul waaye ci loolu lépp ñu xam ne du tontu yuy méngoo parce que école bi soriwul te aussi parfois xale bi mën naa xëy ab bés. tardé mu yëkkati paas ne ko dawal dem njàngi yooyu yooyu yëpp mën na ci bopp boobu aussi mën na xayma ne la amul dépense nga daal di koy def zéro suñu dugaatee ci li nga xamante mooy uniforme ak tenue xale bi bu ñu dem ci école yi dañuy faral di seetlu ne xale yi ñoom ñëpp a bokk mbubu ñooy nuroo yëre yi ñuy sol ñu ne ah loolu kat ñaata ñaata la la liggéey mu daal di dem ne ah loolu de bi ma koy jënd jëndee naa ko ñeenti téeméer moom it léegi bu ko defee ñu dem ci frais de nourriture 4 question M414 ba léegi frais de nourriture cantine ak cafétéria lii euh, dafay mel ni rek ci école yi nekk bu récréation jotee xale bi bu génnee dana am lu muy jëfandikoo ngir mën a dëgërluwaat tuuti euh, ñenn ñi sax ñuy faral di bàyyi gone yi di dem école noonu te duñu ndékki yooyu yëpp danay faral di am te buñ koy def dana am lu ñuy teg ci seen loxo buñ demee ca lekkool ba man faa maanaam lu ñu dëgër lool suuf foofu nag aussi looy négocier ku waa ji borom kër gi la mu man di waxtaan ak yow ndànk-ndànk ba nga am élément yi nga soxla mu jàpp ne mankat kat bi école tijjeeg léegi def na juróom-ñetti weer wala juróom-benni weer xale bi lu jàngi samedi ak dimanche waaye chaque jour bu doon yeewu dinaa ko jox cent franc ñu def calcul bi foofu bu ñu jàpp ne ah kii kat booboog léegi ñàkkul jox na ko lu tolloog 34 000 maanaam juróom-ñaari junni ñu manqué suñ jógee ci loolu. ñu laajte ah xale bi moom bu fekkee ne dem na ca bërëb ba muy sàkku jee xam-xam ba ñibbisi ndax am na ku koy toppatoo ci wàllu njàngam jooju maanaam bis bu ñu ko joxoon exercice ca école ba ndax am bu ñëwee ca kër ga dina am ku ko jàppale dimbali ko mu ne loolu mooy cet enfant a-t-il un répétiteur au cours de cette année oui ou non ñu ne amul ñu ne autre dépense maanaam fii ñu ngi xool nag ndax am na yoo xamante ni tudduñu ko ca ndax amul yeneen foo xamante alal dugg na dem ci gone bi ñu mën a xam te bokkul ak kooka noonu bu ko defee fii waajur yi mën na ni ah man de sama doom bi école bi ji jëndal naa ko dàll bi jëndal naa ko yëre bi jëndal naa ko saak bi xayma yooyu yëpp mu ne ah man de jot naa cee def foofu it daal di def juróom benn junni boo xoolee bu ñu paree ci question boobu rek maanaam ci laaj boobu dañuy dugg ci fi nga xamante moo koy jeexal questionnaire benn xale boobu ñu jël bu tudd bi tuddoon yi di doomu Rokhaya Cissé bi ñu wàccee questionnaire bi mu joxe enregistré ñu enregistré boo xoolee buñ ko enregistré day joxe fii nombre d' enfants déjà enregistrés un sur de te biñ koy door a def zéro sur de la woon léegi enregistré nañ benn xale bi mu dese ñu beneen xale bi nga xamante mu nekkaat ci kër gi moom it ñu war koo enregistré war a toppaat ni ñu ko toppee woon léegi ci xale bu njëkk bi. boo xoolee loolu rek mooy ñëwaat ci beneen xale bi ñu enregistré ko waat door dugg nag ci li ñuy woowee test euh, xale test enfant c'est bon di wone par exemple def naa sama enquête ba pare dugg naa ci ménage bi def naa sama enquête def naa sama test ak xale yi euh, li ma desee mooy. peut-être sonn naa def naa ñeenti waxtu ca kër ga yaram bi commencé naa metteeg yooyu yàkkamti naa yegg kër ga gis njaboot gi war naa mën a génn ca kër ga ca génn bu gën a rafet euh, na ma ko war a defee man maa doon wax Abdallah mi ma àndaloon doon na ci def liggéey bu am solo moom occasion la pour moom mu ñëw toog bu Abdallah ñëwee toog dana ko def ci anam ba mu gën a rafetee ah dana jaajëfal waa kër gi dana leen ne ah ñu ngi leen di massawu di leen jaajëfal ci disponibilité bi ngeen ñu may ndax euh, yombul borom kër bàyyi sa yitte bàyyi sa lépp daal di ñëw toog fii pandant quatre heures de temps di ñu déglu te amoon ay yitte sax yoo waroon a mën a doxi di la ci jaajëfal di la ñaanal yàlla di ñaan lépp loo xamante def nañ ko ci yaakaar bi nga am ci sa njaboot yàlla bu ko yàlla tas bu ko defee ci foofa sax la ñuy woo njaboot gi xamal leen li nga xamante mooy test yi xale bi def ah ma réa mii de def na testam waaye am nañ ñu ne kat moom lu baax la daal ci li mu jotaguma def waaye nag du tee fas loo làbbali rek mu gën a jëm ca kanam làbbali dana ci baax buñ ko jàppalee incha allahu rabbi dana baax yooyu danay doon ay mbir yoo xamante ne dana jàppale gone gu baax a baax ci euh, na muy jëmee kanam ci njàngam wasalaam jërë ngeen def